asalaamaaleykum euh, ñu ngi leen di ziar bu baax yow Omar Diagne man maay wax ak yow wax boo xam ne dama bëgg nga déglu ko euh, sëriñ bi démb génn na àddu nga génnaat di wax naan tarixa sàngam nga bokk ak nàngam gis nga tarixa yi ci réew réew mi rawatina tarixa waa kër Cheikh Ibrahima Niass noo ngi leen di ziar bu baax di leen jox wàccuwaay nun yoonu murit amuno benn tarixa xaar ma yàlla ndax. wirdu tijaan moo gën a màgg ndax sëñ tubaa jaar na ci xaadriya gën a màgg sëriñ bi jaar na ci am ak ñoom war ma séqoon nag ñu baax ñëpp jàmm xalifa bu fi mës noonu nga mel ak waa kër sëñ tubaa kon lii nga bëgg a jël di ko yóbbu foofu dëkkul foofu yow yaa nu attaqué yow en personne war ma ji ñu war ñun ci sëñ Muntaxa moom lañ war a jox yeneen kilifa diine yépp te ñun loolu lañu sant benn jullit duñu ko noonu mais yow doo jullit parce que yow da ngay yee fitna te yeekat yeekatu fitna boo gis du jullit yow fenkat nga premièrement man sax waxatuma sëñ bi fenal nga ma ndax nee nga man dama daan rab man musuma rab dama lay wax li ma def football yooyu laa def waaw foo yooyu yëpp def naa ko notation yooyu yëpp def naa ko ak yoo xam ne duma la ko wax te bis bu jaree nga xam ko duñ ko xam mais dañ ne la turu Serigne Touba lañ bëgg nga bakko Serigne bi loolu la wax. boo ko tegee ci rayonde di nga fi fekk ñu la gën a réew boo fi boo ko tegee ci banditisme di nga ñu la gën a nekk bandi lem seeni bandi jëndi ko taalibi Sëñ Tuubaa c'est saa le problème état nag la ñuy wax ne nañu àtte ak yow yow yaa sosol suñu sëriñ wax wax yoo xam ne du dëgg fen fen yu rëy ñu lay wax nga commencé naan am na ñu ñëw pour jàppale ma ñooñu la jàppale ñu ay tàppet nañ génn nañu génn ak wax ñu fan lañ nekk ak wala yow yow wax ñu foo nekk wax ñu ko. nee nañu maa ngi fii nga xool ba xam dinañ xaarati sax lenn parce que yow réew nga def affaire réew na dëgg nga def gis nga nag ñun lu ñuy def lu ne dañ koy teg ci yoon yoon a ngi fi yoon dana àtte lii bu ci yoon waxul ñun dinañ ko faj sa gat la ñuy xotti bëccëgu ndara kam te kenn du ko faj parce que affaire réew na nga def ñaata nit ñoo ne ci ay tarixa di wax ci yoonu murid ñu leen di bàyyi ñoom ñu ciy wax bari naa ñaata tarixa ah xoola ñoom seex euh, arabi ñas ñooñu dañuy wax ci sëriñ Touba fu nu leen fekk def leen ni suñuy Serigne xoola ay ustaas aadi ñas ah xoolal ñoom sëñ ame xalifa ñoom Iran Ndaw mais ñi ngi ci yeneen tarixa ba pare jox Serigne Touba war ma ñu nit ñu joxaat leen war ma bu raw boobu mais yow yaa yow yaay yow yaay noonu yow yow yaay ku bon yaa ñi ñiy jéem a dugg ci réseaux gis man réseaux sociaux dérangé wu ma soo leen ciy wax sax di ma jéem a attaqué man damay kontaan parce que nii ko attaqué ay tapet lañ ay ragal lañ maam Mor Mbaye mi ngi nii dëkk fii banlieue di dem nii ngoon gu jot maa ngi géej de sport ñëw leen ay ragal lañ hmm? vous êtes des boxat ay tap man tey laa xam ne Sénégal fa woon naa góor du fi daw mais ay tapit ngeen lii ne sëriñ bi wax nag ne mën nañ koo faj mën nañ ko faj de. mais dañuy déglu parce que lu ne dañ koy jaar ci yoon ah les imbéciles là xamoo dara tekki woo dara din ba tey fekk ñoo xamante ne bi ñuy jug jugu ah seeni waru dàll la gën ngay ku bon yaag ñi ànd ak yow ba pare nekk naan da ngay jéem a attaqué yoonu murid dinañ ko faj laa wax buñ ko fajul parce que ñi gars yi li li nit ñi jaraloon ab leader ñu nar ko def nangam ñu génn ñoom di mu jaral leen ne leader bi dañ ko def nangam ak nangam am ñoo xam ne boo tuddee tey président mu jóg ñun sëñ Tuubaa nu gënal ñooñu ñëpp laa wax moo ñu ko gënal du da ngay jaay bakkan yow jaayoo bakkan naan combat bi yow koy combat génnal combat toog sa néeg naan damay combat ci combat bi laa nekk yow lay xeex yoonu murit darajati taxlu walay sa tan xufit wa man nahaa minal wara xaf din xufit sëñ tubaa nee na sama daraja kawe na tuddootu suufee ku bëgg bëggati ma suufe yow yaay suufe yow nag di nga dee ba dee daali nit ñi dinañ la romb murit yi soli jasineer sa xol di tàng doo ko faj sa maam du ko faj sa baay du ko faj kenn koo ku ku mel ni yow ci mbon du ko faj ndax xam naa ma génnaatee ñu génnaat daal nekk ci réseaux sociaux di tontu maam ñuy wax nañ ma wax fan lañ ne mais ay tapet lañ vous êtes des ragal boqat les si li ngeen doon